qui nous a permis d'être en vie euh, et d'avoir euh, servi notre pays en tant que parlementaire, en tant que législateur, d'abord dans le cadre de la session ordinaire unique de l'année, puis dans le cadre des deux sessions extraordinaires, dont la dernière, la deuxième, s'achève dans quelques minutes. L'histoire ne tiendra que ce Parlement qui a été installé dans des conditions scabreuses, maintient sa vitalité dans le cadre d'une diversité, mais permet aux députés, aux législateurs de s'adonner à leur mission. Aujourd'hui, à la fin de cette deuxième session extraordinaire, nous avons achevé ce que nous avions commencé avec la première session extraordinaire et qui provenait des conclusions issues du dialogue politique et qui ont amené le président Macky Sall à saisir le Parlement au fin de réviser l'article 29 de la Constitution et de réviser le code de procédure pénale. Enfin, après épuisement du dossier relatif au recours concernant l'article 29 de la Constitution, nous nous sommes retrouvés donc dans le cadre de cette deuxième session extraordinaire pour adopter les révisions concernant certains aspects du code électoral. Nous nous en réjouissons parce que notre pays est réputé être un pays de dialogue. Vous vous en souvenez, à l'ouverture de la deuxième session, à la clôture de la première session extraordinaire, j'avais dit que j'ai invité mes amis de, Walu, de, Et au-delà de ceux qui étaient dans le F24, je leur avais dit que je les invitais à se souvenir que notre pays était un pays de dialogue et que même dans le cadre d'un monologue parallèle, nous dialoguions. Je leur ai dit qu'il fallait absolument s'armer de raisons, d'intelligence pour dialoguer avant que euh, nous soyons forcés de dialoguer parce que contraints de se sauver. Aujourd'hui, on se rend compte que le dialogue, étant consubstantiel à la démocratie, ne peut pas être épargné si nous voulons faire des avancées démocratiques. dama session extraordinaire

parce que lolu moy wane né Sénégal réewu dialogue la tay Benno Wallou ak une partie de taxaw de de de à travers taxaw and nañu rénover réviser l'article 29, neuf xaar ba recours bi jeex président bala mako ko promulguer ñun ñu wotat session extraordinaire gannaaw bo xamé né ci première session extraordinaire bi woté won nañu révision code de procédure pénale ñu dajewaat ci deuxième session extraordinaire bi di réviser le code électoral ndokk réeroo amul ñàkk waxtaan moo am jàpp naa ne lii lu waroon la waxoon naa ko ci deux première session extraordinaire bi ma ne leen ànd ak xel dem jaloge moo gën ay xel di la yóbbu ngay dialogue ndax Sénégal réew jalog la même buñ toogul waxtaan. bu kii àddoo fële kële tontu ko ñi ngay dialogué ndax danga nga ko dégg te da wax ci la muy wax kon nañu continuer sàmm loolu Sénégal nekk réewum jàmm réewum dal lii yëpp nag mu ngi am ci jamono boo xam ne mënuñoo ñàkk wax ci li xew ci réew mi mooy dee yu bëri yi moo xam ñi dee ci gaali la moo xam ñi dee ci bavure la moo xam ñi dee ci manifestation moo xam ñi dee ci attentat la nañu toog seetaat suñu bopp waxtaan waxtaan moy suñu ngànnaay moy suñu jumtukaay bi gëna muccu mucc waye ñu condamner violence verbale condamner violence physique man may porte parole PS Sénégal gi depuis SFIO ba tay fii ñu toll ni ñun biñu ñu Sénégal indépendance xeexuñu géej gi débordewul bop bopp rayantewuñ dañoo yeyante ñi taxawal démocratie diko ko suqali di yaatal bañ yegg fi perspective projet sociétal boobu Parti am ci laa bëgg ñëpp dellusiwaat ci ma waxaat ne enfin ci contexte bi ñu nekk yëg ngeen ne démb barki démb président Macky Sall daje na ak ñi bëgg a nekk candidat ci benn bokk yaakaar ma am jàngat bu ma ci def bu njëkk mooy ana lan moo tax ñiy conseiller président Macky Sall di ko dimbali di waajal liggéeyam ñi invité ci rencontre boobu koo xam ne nekkul candidat loolu lu doy waar la xaw ma lu leen dugal ci loolu mais loolu. rafetul jaaduwul surtout que moom mi nga xam ne moom dañ ko ci woon bi mu ñëwee dafa jaaxle na leen man inspecteur général d'état la nekkuma candidat sàkkuma ko lu ngeen ma wooyee fii muy Makhtar Cissé maa ngi koy saluer bu baax parce que kaay euh, yaa war a wax bu mu la tax wax loo gëmul beneen bi ci des mooy Sénégal fii kuy waat nekk président Abdick waatatuloo di ci woo yàlla république laïque lañ nekk démocratique et le caractère et républicain de la république sont par la constitution Quand vous voulez faire une charte candidat candidats, bokk yakar, di ci Vous avez bëgg a bokk yakar bëgg ak la perspective républicaine qui buñu ñu dajale enfin président Macky Sall bi fallu en 2012 yoonu yokute mom la programme oon bak léegi PSE wa kon ana lan ndëgeur la yu nga bëgg tënk nit ci programme nit ki boo xasse ba fal ba mu nek président nek na président président de tous les sénégalais nek tout président au partem ma bëgg kon ñu waxtaanee ci lolu beneen bi ci des mooy ñun wa benno man wa parti socialiste laa bokk dama ne ñun ñi nek ci benno yëpp and ak Macky Sall pendant 12 ans luñ ci neexal luñ ci naqadi couleuvre rek frustration humiliation yëpp ñu nangu ko mënu ma comprendre wa APR bëgg fitnal benno bëgg a Macky Sall jàpp na sax ne Macky Sall qui m'entendent tànn tànn na ko pare te jàpp ma pression mën na ko delloo gën a delloo may wax président Macky Sall bu mu ko jébbale ndax bu primaire la bëgg def fan ngay ñi primaire est-ce que c'est les élus locaux est-ce que c'est les élus nationaux est-ce que c'est c'est c'est ñan là? il faut critérier or ce que ñu bëgg def primaire c'est techniquement inopérant c'est politiquement inintelligent en tout cas nous ñun pas de l'est ñu ngi jël suñu maa ngi woo socialiste yi ñu jël seen responsabilité sénégalais yi bokk PS ak ñi bëgg alternative socialiste maa ngi leen di woo ñu dem def parrainage citoyen ndax xoddee ko ca ba nga lakkalegul wolof nee na jatu leen war na fekk soccet banque tànkam à toute fin et à pour parer à toute éventualité j'invite l'ensemble des socialistes dans les différentes coordinations départements et régions du Sénégal à commencer d'ores et déjà à rassembler, à collecter un parrainage citoyen parce que nous avons un parrainage optionnel. Soit des exécutifs territoriaux ou les citoyens sénégalais. C'est sous ce rapport-là que j'ai lance cet appel-là.